toog di nax sénégalais yi su ko defee journaliste bi léegi-léegi poser la question nga ne ko mu ne la non du ma ànd ci loolu loolu yëpp ñun neen la ñun ñoo bokk télé ba suñu neexee lu nekk lañuy wax nit ñi dofuñ ñuy seetaan dofuñ ci ñaari at yooyu Ousmane Sonko di dugg foofu complot amul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu mbokk julli yi ñu leen di ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan yàlla yàlla nangu ñu suñu weeru koor te jéggal ñu suñuy bàkkaar maa ngi ñëw ci waxtaan boo xam ni di ko waxtaan ak waa senegaal ab nit koo xam ne dafa toog ne gëm ne dafa gis dëgg war a wax dëgg ci diggante koo xam ne nee na taalibeem la nee na baayam la yaakaar ma gis ni wax ji wax ko war na ma sama diggante ak yàlla waaye jubluwuma ci xeex nguur jubluwuma ci xeex Sonko waaye gannaaw loolu ay nit yu bari dañ koo jël féetale ko ci nguur yaakaar na damay xeex nguur ma waxaat encore une fois Macky awma lu may ci moom awma lu Sall APR laa bokk a koy waxaat te ñëpp xam nañ ko nit nag sooy politique léegi-léegi nga toog gis sa position boo xam ne neexu la am nga droit sànn say xeer wax lu la neex waaye daawaata jeeg suñ duggee ci biir YouTube bi wala Facebook bi pourtant taxaw naa na ko jërëjëf kontaan nañ sant nañ ci gàmm gi ndax moon yaay raxmal lépp loo xam ne waxoon nga ko mu war koo def ñëw na def ko te gërëm nañ sant nañ yeneen yi sànni naa yeneen yi gërëm naa te noonu lay politique di demee nit ñi nag dañuy jël di diaboliser yóbbu ko ci wàll MC dafa contre nguur dafa contre nangam waxaat naa ko ne su yàlla defee su fekkee ne maa ngi biir APR ba léegi ñu ngi may nangul élection législative yii su ma yàlla mayoon damay dem continuer ci biir APR te Kaolack gëm a dëkk xam naa nu ma fa toll xam naa li ma yàlla may xam naa ndaw yi nuñ ma bëggee te xam naa nuñ may déggee ku weddi laajal élection yi passé nga xam ne tey dañoo taxawoon ñoom ñëpp ne APR mooy gagné ci Kaolack ma ñëw ci benn àndoo nawle taxaw ne leen dévier naa leen dinaa leen wan ne leen mooy gagné te loolu affaire locale la ndax yaay gis ku la neex nga xam ne kii moo ma doy pour liggéey ci Kaolack lu taxoon ma ànd ak Serigne Mboup dama gis mu nekk acteur de développement gis lu mu taxawal ci àddina ma gis ni tamit Rahma sama grand la sama mag la sama xarit la waaye duma ànd ak moom ci loo xam ne kay day liggéey te liggéeyam feeñ na ak ku liggéeyagul munta bokk su loolu yëpp paase maa ngi waxtaan ak Sénégal fan yëpp maa ngi gis ay audio yoo xam ne dañ koy dugal Adji saar di wax ñu ne lii la doon wax ak sëriñam waa ana sama tontu moom lay laajte bàyyi leen xel bu baax li ma leen di wax am na foo xam ne wax na ne su ñëwee ci fajar gi su toogee xoolal nii lay toogee xoolal nii lay toogee. des da doon ñëw uniquement pour toog. ne ma kaay toog fii ci ma ma toog du ma de day toog rek jàkkaarloog ma di wax rek di wax rek ay ci seen kaw dama boobu nit ñi julli nañ ba pare man daal dama lii finaa ci fenêtre bi la mu jël ay mané ma ne ko finaa yow xanaa sonalewoo ma heure bi parce que don don rek on récolte sonalewoo ma heure bu xamante ni heure bu mu bëggee yée rek yéma ma mu ne ma yée waxal ndànk am na ko toog ci salle bi la xaar sama fi bi di tëf même sans le voir je savais que c'est moi gis nga nii lay toogee si table si déeg si fauteuil nga la kay toogee nii lay toogee yow nit ki lay filmer ak ki ngay wax ak moom ngay wax waaye loo xam ne dañ koy rencontré ci téléphone anamu nii lay toogee ndax jàkkaarloo nit nañ bàyyi ne am nañ waxukaay toog di nax sénégalais yi su ko defee journaliste bi léegi-léegi poser la question nga ne ko mu ne la noo du ma ànd ci loolu loolu yépp ñun neen la ñun ñoo bokk télé ba suñu neexee lu nekk la ñuy wax nit ñi dofuñ ñuy seetaan dofuñ ci ñaari at yooyu Ousmane Sonko di dugg foofu complot amul état du Sénégal xamul usmaan Sonko mi ngi fay dem bi Ousmane Sonko amee njombe foofu muy guddi bi nga xamante ni si la Adji Sarr am man niwu usmaan Sonko ngeen baal ma ci weeru koor bi am man niwu usmaan Sonko bi mu ko amee ba noppi mu woo Sidi Mouhamed Mbaye

ak li nekk ci yeneen yoo xam ne ay waxtaan la bokkuñ su fekkee xel la buñ fàtte ne la Joor dafa amoon ay géwélam buñ fàtte nag man nii damaa jege woon kër ngéwél trop te sama xel mi yaatu lool te muus kenn mënuma teg pression ba ma def lu ma warta def audio bii ma dégg ñu naan MC Niass nee dem na ci sëriñ yi ndax vidéo yi ñu am yooyu yëpp c'est faux dama bëgg ñu bàyyi xel ci lenn dafa am journalist yoo xam ne dañuy toog di manipuler poppalu Sénégal gi dama bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax ndax dañ ne aji Sarr moom moo doon wax ak man ci audio yooyu te li ñuy wax noonu xelaw sénégalais yi lañuy jël di liggéey ci ñoom te la ma doon wax ak moom ak lii muy wax ak la ma doon wax dafa utee dafa mel ni rek nga jël yoonu Tamba man ma jël li nga xam ne mooy yoonu dakaar gisuma ci lenn doo xam ne bokk na ca lañ doon waxtaan te nit yooyu mooy kan na leen sénégalais bàyyi xel alalu àddina jaral na leen taal seen réew te alalu àddina jaral na leen rey ay bakkan yoo xam ne seen doomu réew lañ kon nak nit yoyu suñ leen di Deglu, ñu leen di baye xel war nañu muslu ci ñoo te degg na ñi waat ci alquran nga xamne alquran num reey ngay waat ci sëriñ salaw mu sel mom ma ngi nuyu sëñ si se mu nekkon bëkk neegam di nuyu ki nga xamne moy minikar ak silla ak kam nga xamne xamona len muy sëñ Saalu gis naa ko ay yoon ci teddam gis naa ko ci ay yoon ci sellam ñëw naa nuyu ko ziyaare ko fekk ko heure boo ko ñëwee ci këram danga koy fekk ak kaaminu alxuraanam bi kon su fekkee ne kooku nga bëgg kooku nga roy kooku ngay roy war ngaa mun a am tuuti lu mel ci moom waaye di mbubboo lislaam di wàcce nit ñi te la ngay wax dara du ci dëgg kon Sénégal maa ngi leen di waxaat ngeen bàyyi seen xel nit ñi nga xam ne alalu rek moo leen ñor billahi wallahi tallahi war nañoo jug ñun ñëpp sénégalais ñu xeex loolu ba nga xam ne ñooñu ñoo toog ñu leen di déglu ndax suñu doom yi ëllëg yi te dafa am valeur yi nekk Sénégal suñu maam yi yar ñu ci suñu bàyyi yar ñu ci te commencé naa yàqu te loolu waruñoo seetaan mu yàqu kon nag su ko dinaa leen ñëw wan leen nit kooku mooy kan kon seetaan ne lii ma leen di wax. ma teg ci benn affaire képp koo xamante ni yaa ngi wax dëgg ci dossier bi nee nañu état du Sénégal moo la fay parce que ñoom ñëpp ñu leen di waxal dañ leen di fay ñu foog ni ñëpp noonu la alors que ñun muy état du Sénégal muy keneen kenn ñu ñor muy les 7 millions d' habitants du Sénégal kenn ñu ñor muy les 7 millions d' habitants du Sénégal 7 millions d' habitants du Sénégal. nii laay liggéey ak ñoom de man encaissé naa sama xaalis yàgg na. xam nga moo tax par par su ngeen yoon nan APR la du APR ma ne ndeysaan comprendre ñu xamuñu si ban business ak ban logique sax laa dugg parce que dama doon nekk gars yi liggéey noppi bàyyi leen kër ci kër ci amul benn njëriñ kenn si ñoom ko gorew ci moo tax ba ma ciy duggaat nii di defar ay journal di wax dama leen ne lii am laa ciy def par la force fëggaat bunt yi gis nga dama ci waxtaan benn kër mu ma Tange réew bi soo ci bëggee dox il faut faire avec les grands et parler dans la politique nee na politique bi tànk yaa ngi toog jàpp sa njaamur yàlla dañu naan kii mais tànk yaa ngi commencé wax ñoom ñoo lay ragal benn par benn benn ñoom ñoo lay wool seen bopp te seen intérêt moo leen yëkkati yow xoolal sa intérêt keroog xam nga maa ngi lay naan Bougazelli ma woo dama foog nga jàppale ma euh, man pare naa lépp loo bëgg mën na loo war laaj mën naa la ko jox foofu da ngay dem jël li ngay jël su amee benn wax nga waxal ko ko romb fële bàyyi gars yi di saaga wala di expliquer su ci paree moo xam su ci xam parce que décidé woo Cheikh Yérim nekk fi millionnaire de yor yu dul jeex donc nag lu luñ ko saaga saaga mi ngi ak suturaam mi ngi ak teraangam yor ay këram yor ay bagaasam donc nag doo nekk ci milieu ba génn ci doo ci yor dara man sama bopp laay lijjanti ñoom moom dañoo def échec carrément mooy sooy daanu tuune ngay doon Macky moom lii moom dafa leeral carte bi 2024 da daal ay bagages am nga toogi ndànk jàpp njaamuram waaw la des nag ci mille ak 2024 ku ci mën a profité loo ci mën a lekk nga lekk ci jeex na tàkk waaw mais ñoom pare nañ ci te commencé gisante gars yi te gars yi ñoo lay soxla kaay moo la gis nga ñun du ñun ñooy soxla pouvoir ñoom seen bopp ñoom ñoo ñuy soxla parce que ñun ay porteurs de voix lañu ñoom ñoo ñuy soxla man mosuma soxla waa APR ñoom ñoo après ñoom ñoo gis sa influence après ñooy ñëw ci yow mosuma leen gëm politique daal ngay xool sa intérêt parce que ñoom ñëpp yem gëmuma ci kenn Sénégal il est c' est comme ça de da nga leen di xam rek nga dox ci seen main yow nga xool sa intérêt xool nooy fajee say soxla tout simplement bañ mel ni Fatoumata Ndiaye def la lépp amoo ci oto amoo ci kër ci dara di yor ay bor di ñaan nit ñi ay dix mille francs yooyu moom wax dëgg yàlla ko euh, a deeti Fuuta Tampi ma ne ko Fatoumata Ndiaye Fuuta Tampi bii nga xamante ni moo doon xeexal Macky saa di yuuxu kër ci kër saaga ndeyam kër ci non jour mooy jour ma tourné ak moom émission mu génn xam naa si la am problème courant mu yónnee ma message premier jour boobu sax jour boobu laa koy soog a gis jour boobu moo tax ma ne yow nit ki soo koy ñaan sax da ngay ak nit ki waaye yow maa ngi soog a toog ak yow sur plateau musuma la gis à part dégg la ci télé rajo moo lay wane que ñii ñoo perte ci politique ñii ñoo perte ci APR. Macky Sall moom datul bokk ci sax 2024 bay day gañe wala ñàkk gañe troisième mandat moom xalaatu ko gars yi sanctionné nañ ko cravaché nañ ko dama ni man businessman laa fii gis nañ lu fi xew gis nañu Cheikh Yérim Seck waaye sa fe man sama intérêt laay liggéey la ma ciy lijjanti lijjanti naa si nga seen ginnaaw kër gi foofu ci côté géej jox nañ ma fa ngandim terrain yor naa samay kayit yor sama lépp man je suis un businessman lijjantiwu ma leneen voilà yoruma seen carte APR uma APR tuma dew ma seen meeting dew ma seen lan non kaay ma la nag gis nga sénégalais et puis euh, jamono ji réseaux sociaux la ñuy gagné te Sonko dafa miine réseaux sociaux yi ndaxte jeunes yi ñoo yor sociaux yi maire yi di ci kekkantoo di ci fo APR loolu moo daan rey. maa ngi wax senegal ne man ma maye ndigal barke alquranul karim képp ko xam ne am nga sama audio boo xam ne may waxtaan ak Adji Sarr ñaan naa la ko ngir yàlla ak jëmm weeru koor gi teg ko su loolu yëpp paase nag. yow mii nga xam ni yaay Tange toog sa télé jotewoo ak Baye Mbaye dara nga toog di wax lu la neex man duma tontu ndax su dul dara sama daraja ëpp na sa daraja tey danga yaakaar ne mun ngeen ma yàq ba nit du ma topp wax naa leen jaan doomu jaan rek lay doom gis nga man su ma nekkoon di naan sàngara di ànd ak xale yi jigéen ñi pour ma wan la rek na la lii dëgg su la neexee laylatu xadri ñëwal nga xool mbooloo muy topp ci man soo xëyoon fii ba àddina di tukki bët bu set nga yàq sama der wala nga wax dara du tax mbooloo daw mukk ndax loolu sama baay moo ko liggéey te xam ngeen réalité Sénégal gëm-gëmu sëriñ nga fee nekk te day sax ba faw mënoo leen ko yàq yow nag man duma la wax wax ju ñaaw duma yëkkati sama làmmiñ wax ci wax ju ñaaw ñaanuma ko yàlla ak kum man ci doon waaye képp ku ma wax wax ju ñaaw ci loo xam ne teguwut ci dëgg loolu bàyyi naa ko ci loxo yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg yow te su dëgg feeñee duma leen ko baal ba ilaa yow di yéen nag yéenay yi lay man waxuma ak moom de sénégalais yi laay wax ak sénégalais yi nañ seetaan ñu xool ñoom ci boppam ñu analyser liy dëgg ak lu dul dëgg maag moom kat moo ci nekk dëgg ndax heure boo taxee ne nga yow liggéeyaloo kenn dëgg ngay liggéeyal xamoo benn sénégalais boo xam ne wala benn ci gouvernement bi musoo def ak moom dara loolu yow yaa ko wax xamoo leen musoo cee ut kon nag maa ngi bàyyi sénégalais yi ñu seetaan déglu seet ndax man ak moom kan moo ci nekk ci dëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ndaxte démb dama dégg benn genre maara. bu def laay ak kaay foofu mu ne man dañ maa jox kër ci wetu ndox. yow mii man état du Sénégal dañ maa jox kër ci wetu ndox te am naa ay ojo yoo xamante ni dina ko teg ci semaine bii moom moo ko wax. sama jabar bi ma doon sëyal Amina Niass Amina Niass. Mhm. nee na papam ak Baye mbay ñoo bokk. kooku moo jóg naan ba may sëy ak yow Tange soo doon wax téléphone dama doon jël sama téléphone di enregistré jox naa ko Baye mbay dina ko teg.

dommage que la guerre a commencé ça fait trop longtemps mu wax sama tur tox sama tur yaay wax sama turu papa je suis désolé pour toi mais j'ai beaucoup d'enrichissement sur toi Amina Niass bi ma doon sëyal sama biir kër nee na su doon wax téléphone ak sama wàllu liggéey da ko doon enregistré jox na ko Baye Mbaye MC Niass mais na xamal ni Baye Mbaye MC Niass boobu Amina Niass bi ma doon sëyal wax na ma lu bari ci yow mhm. Amina Niass wax na ma lu bari ci yow ba ca sa jabar ajara siise balaa nga koy takk doom jigéenam jabar ji nga takk États-Unis na ngay amee xaalis xam naa ko kon loolu du debaa parce que fam loo xamante ni ci biir kër la maag moom ñoo doon sëy ci biir nekk ñoo doon sëy kon tey guerre des audio soabe na ci génnee loolu parce que xamal naa leen lu bëri hmm. ba ci bàyyi mbay MC boobu xamal naa ko lu bëri ba ci juddam ba ci ngentem Cees ba kuko tuddu xamal naa ko lu bare suñu dawe fofu foofu rek dañuy dugg ci leneen ba ci mom momu xamal naa ko lu bare ndaxte ko sëyal ñaari at ko génnal at ak juróom-benn weer say dagal na tas dagal na waaye na rafet fofu la la bëgg waxe ci complot kon nañu tey man amu lu may ragal sama aduna donc buñ fi indi waxu complot nañu jël deug diko tek man Sénégal suñu amon ci man dara tek nañ ko yàgg na chaque jour nga deg so moytul dañ tek soo moytul danañ teg hmm. kon nañ jël waxu complot teg ko fële lenn non may ma rek ma ñëw daan ci question bi kii ma posé question kii laay toog voilà donc hmm. coow li coow li coow li du kay foofu mooy juge du Tange Tandian mooy juge du Thioune mooy juge kenn mooy juge Adji Sarr sénégalaise la am na sañ-sañu porter plainte Ousmane Sonko su ko deful woon dara du ko porte plainte hmm. xaw ma nag ndax violé na wala violé wul viol nag lu yomb la tey sa jabar nga bëgg ko tëddee sax mun la dama sonn bàyyi ma soo ko forcé su ko neexee mu ne la danga ma violé parce que mooy consentement amu fa. mi dacci dee may allah mi dacci dee may allah nga jël sama vidéo yi ak samay photo publier est-ce que loolu war na la Tepatlah terang relaksa kejut Begitulah bunyi atak Lo malah nyadal Kejut betul mandi Menjai dek Kau main aku kulit nak makan parce que boo déggee na naa la ak